ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la gi duñu xamal ne Seydi Gassama kay kàddu yi nga bu mel ne bu ñu ko déglee gi duñu xamal ne a daganal li boo gisee nag li tax moom Seydi Gassama mu yëkkati kàddu yu mel dafa jàpp ne nag réewum Sénégal jamono ji bëri na ñoo xam ne rek ña nga ci kaso yi tey nag li leen ko yóbbee du lenn lu du tuxum yàmba yéene kaay gi duñu ne maanaam daal bu fekkee ne xalaatu si di gasama bii daal bu fekkee ne am na Sénégal mooy nekk ñetteelu réew boo xam ne daal maanaam tuxum yàmbaa loo xam ne rek jëm na ci wàllu diine ñi nga xam ne daal ñoo ci wàllu diine xel xalaatul laa la wax réewum Sénégal ñu naan dañuy bàyyi ñi ngi tuxum yàmbaa wala déet waaye tamit bëri na ñoo xam ne ay fajkat lañu loolee nee nañu xel xalaat ci jamono jojee Mame Mactar Gueye ma ràngu woon mbirum ràngu yéene gi duñu xamal ne jamono jamono ji nag am na lu mu ràngo muy lépp loo xam ne rek jëm na ci tuxum yàmbaam mii nga xam ne daal maanaam daal nee nañu danañu ko daganal wala déet Mame Mactar Gueye tontu Seydi Gassama ne ko yow lii ngay wax nii moom waxe lu mu doon yow Seydi Gassama maanaam daal waxi saret lii muy wax daal Sénégal xel xalaatu laa la wax ñu naan dañ fee dagalal tuxum yàmba wala déet Mame Mactar Gueye di xam ne ne tuxum yàmba xanaa da xamul yan jafe-jafe a a a a a moom waxi saret la Vox Populi du ñu xamal ne daal ak lu mën di xew ONG Jamra kay yekk nañu lu mel ne xamee ki nga xam ne rek moom daal a gannaaw ay flyers yoo xam ne ne rek doon nañ ko séddale waaw ngir wax lépp loo xam ne jëm na ci courant gi nga xam ne rek yokk nañu ko ci réewum Sénégal yéene kaay gi leen génn ci nii wala ci na maanaam daal xeex bi danañu ko gën a taral Alassane Seck secrétaire bu Ligue Sénégal des droits humains moom tamit yëkkati kàddu di xam ne ne ñii nga xam ne daal teg nañu leen loxo li ñu leen jàpp réewum Sénégal ngay distribuer ay flyers ñu lay teg loxo Le Soleil di ñoo xam ne jëm na ci garab yu bon yi nga xam ne daal ñoom lañ doon waxtaane ca Togo ay garab yoo xam ne day fàtte kenn du yëg loole nag tax na nag ñu ne danañu ko xeex ca xeex enquête du ñu xamale xam ne kër sëriñ bi mbir ya ma nga fa fees dell nga dem ci Touba mbir ya nga xam ne rek moom la wax rougeole yéen kaay gi du ñu xamale am na lu toll ci ñaar fukk juróom benn yoo xam ne jamono ji jàngoro ji dugg na leen dañ ca Kolda ci Thiès am na fa ñu daaneel ko mbir mu doy waar mi nga xam ne rek am na ca Saara Yoba nekkee ca Kolda yéen kaay gi du ñu xamale benn soxna daal la fa faat ci anam gu ñaaw dagg boobu ba yóbbu